Euh, Mourtala Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi yow yaa yu nekk coordonnateur euh, collectif euh, ñoo lànk. charte bi nga xamante ni tey am na ay kuréel yu jóg taxawal ko. yéen ngeen bokk si ñi taxawal charte yi. Mhm. ndax mën nga ñu expliquer effectivement mbir mi lan moo ko wund. bon d' abord. ñu gisee problème dañoo génn communiqué ba pare et c'est disponible ku ne mën na ko xool daal di wax ni kat lii nii il faut kat am ñu jóg jiitu ci loolu dañ ne mieux vaut prévenir que maanaam dox ci tànku jàmm ci ñun ñi nga xamante ni ñoo mën a dem ci ñëpp ñun ñi nga xamante ni bokkuñu fenn dañoo tëdd tëddaay jaaxaar. kon yéen waa lànk yéen yéen waa lànk yéen initié charte yi. le quatorze le quatorze mois bële passé la ñu la ñu defoon charte waxoon annoncé ni bind nañ charte loolu kay kenn waxu ko booba. waaye nag comme jàmm moom ñëpp ko war a dox ñi ñu ñi ñu fekk si aussi ñun jàpp nañ dañ ñi dafa dañoo bëgg mu gën a baax et c'est normal mu gën a baax léegi yéen yéen non lànk charte bi ngeen taxawal ak bi euh, cadre unitaire islamique taxawal ndax même charte la waa non euh, charte yi weesuwul lu dul woote jàmm waaye nag ci biir am na ay pàcc yoo xamante ni tey li tax nga wooma muy wàll waa maanaam suñu retiré wu bi ñu retiré wu question benn rek la ñu posé gis nañ ni kat jàmm li tax mu war a gën a mën a sax fii ñu toll mooy kat kii di Macky wax ni moom du def troisième man. waaw yéen waa lànk yéen waa lànk yéen ak ñan la woon. non ñun ñoo mooy cadre unitaire bi ngay degg sëñ bi. cadre unitaire islamique bi ak waa cadre unitaire bi ak euh, jàmmi réew mi ak euh, euh, mooy mooy mooy mooy cadre unitaire bi bi doon wax léegi ñoo ñun ñooñu ñëpp la. d'accord parce askan wi dafa dafa regroupé ak ay ay ay kii yu bari. léegi yéen lan moo tax ngeen génn ci. waaw mais li tax ñu génn dañoo jàpp ne jàmm mënut a am fii ak Macky Sall génnul wax publiquement que ni moom troisième mandat kat moom defu ko parce que loolu apaisement bu dee cent pour cent la loolu jugee na ci loolu lu mat quatre vingt pour cent comme nag ñun gis nañ ni ah duñ na ñee dañ ko bañ waaye waaye gis nañ ñun loolu dëppoo ak suñu gis-gis. d' accord léegi yéen euh, euh, Mourtalla euh, yéen collectif mhm. ñoo lànk bi ngeen proposé ci biir cadre unité islamique bi. que Macky Sall mhm. warut a def ñetteelu mandat nañ ko boole ci charte yi lan moo mhm. nekkoon taxawaayu ñeneen ñi. waa taxawaa ñeneen ñi ñun dafa leerul suñu bopp ñun ñun ñoo lànk loolu leerul suñu bopp parce que gis nañ ni jàmmkat boo ko waree dox newuñu nag kenn dafa def lenn waaye ñun am nañu droit ñun collectif ñoo lànk ñi nga xamante ni ñu woon wax ni dañuy def charte depuis le quatorze mois passé mën naan ne euh, violation yi amoon Ziguinchor ci jamono ji boobu gis nañu ni am nañ ay natango yu bëgg ànd ak ñun dox jàmm ñun ñu ànd ak ñoom it dox jàmm. parce que daam jàmm sax mais mais Mourtala mais. lu ñu leen ma terminé ma terminé sëñ ma terminé. mais il faut nga leeral lan lañ leen wax ba leerul sa bopp lan moo leerul seen bopp. mais mais moo ci laa jëm nii sama sëriñ si laa jëm ni soo ma daggee damay perturbé wu man je pense que li ñu wax mooy ak li ñu waxante ñoom mooy ñun kat dañoo bëgg ci biir lii ñu boole ci ni Macky Sall du day génn wax ni du def troisième mandat. lan lañ leen tontu. non tontu bi ñun dafa leerul suñ bopp rek parce que tontu bi mooy ba tey ñoom euh, loolu ànd ñu ci ci ñàkk a ànd ak ñun ñun loolu lañ mën a dégg ci ci ci ci waxtaan bi donc man je pense que loolu boo amee te ñun ñu doon collectif boo xam dañoo nëse tey dox lu wóor euh, gëm naa ne day day gën a baax ku ne jël sa yoon dox na nga xalaatee ni moo mën a indi jàmm. léegi position bi Ousmane Sonko jël na di ko signé lan mooy si seen xalaat yéen waa ñoo lànk. waa mais nit ku nekk am nga droit xool mbir bu la doyee wala bu la doyul peut-être moom. dafa taxaw ne man diw man Ousmane Sonko la wax du ma ko signé peut moom am na gis-gis boo xamante ne tant que politicien moom loolu sa nangal parce que tamit décision nit kenn mënu ko cee fekk ci biir xelam xam lu tax mu jël ko mais ñun li ñu gëm te gëm ko dëgg-dëgg mooy jàpp nañu Ousmane Sonko ci boppam nekkul koo xamante ni dafa bëgg lu dul jàmm am ci réew mi ak keneen ku dul Ousmane Sonko ku bokk ci lànk politique bi parce que jàpp naa ni ñëpp tey. bëgg nañ Sénégal am jàmm. waaw mais Guy mais Guy Marius dañ ko dégg mu ne charte bi bi bi Macky Sall war a wàccoog moom jàmmam mooy charte bi tudd constitution bi. waa mais loolu mais attends mais loolu c'est en général tey tey ñun ñun ñun ñu wax euh, moom li mu wax noonu mais dëgg la parce que tey jàmm mënut a am tey jàmm mi ngi des à quatre-vingts pour cent ci loxo Macky Sall parce que il est le premier magistrat de ce du pays Macky Sall il est le président Macky Sall moo y suñu police. am na ci loo xamante ni moom ça lui revient à quatre-vingt pour cent kon moom suñ camarade boobu waxee noonu ak li ñu waxee yaakaar naan différence amu ci. parce que ñun ñëpp jàmm la ñuy woote. d' accord jërëjëf Mourtalla Seck ñoo lay sant la gërëm. jërëjëf sëñ bi kontaan nañ